dañuy présenté imam yi fi nekk rek Thierno Souleymane Agne kii mooy imam ratib région Tambacounda moo ngi ànd ak nag mboole mi imam yi fi ne ñoo ngi moo ngi nekk ak rakkam xaritam imam Tidiane Cissé ak imam Thierno Idrissa jallo yor jàkk ji nekk Gare Scotiabank Plateau moo ngi nekk ak imam Keba Kora ma ñep dina am ñuma ci si ki rek ñu yobale ñu imam no ya ya Jallo mom tam si imam yi la bok imam Cerno jabi si imam yi la bokk nek fe ci Tamba sosé andak délégation di imam tamit khasum Jallo Nek fe si abattoir mom tamit si imam yi la bok imam Cerno mo ngi Gurel Jaaji si imam yi la bok imam Cerno Haruna Li sara Gilel ñom ñep ñew nañ bok ci délégation bi ak imam cherno Ahmad Niang mom nek Liberté 1. cherno Alhassane Ba euh momit imam yi la bok imam cherno Siraji dafa dem Dakar mo jité délégation bu dem way domam cherno Ahmad Baro. met njabota njabota moo ngi foofu incha allah su comme ni ko waxé won rek suñ fi joggé rek képp ku wara dem rek danañ fa dem su yalla suko defé ñi yegg kër ga incha Imam imaam yi am nañu toog si biti ak ñoo ne ay wëllëra lañ ay abdi di jàmb lañ ak maanaam njabootu kër gi si bopam ñoom ñëpp ñoo ngi biti tok o yi président ablaye silla noon en fonno arande hoore makko kanko o sabu weltanade ceerno ara juurade mo o wi hade men yettoyade toon yo artu ha ɗo o mo ceerno souleymani agne mu ne na nga xam ne lu ñu lu leen tax a jóg mooy liggéeyal yàlla ak yenent bi dong sallallahu alayhi wa sallam moo yéen tamit loolu mooy seen mission e kon nag fekkente ne ñëw ngeen seen biir fekk len si ay kay ay ay soxla ñoom tamit dañ leen leen wax soxla yooyu am na benn jaamu yàlla may daf may bërëb bërëb bi nga xamante ne nag daf leen ko may ngir yàlla dong tax mu ne benn terrain la rek bu nga xamante ne benn kër lay tollool mu mu may ko nag association de imams des oulémas de Tambacounda mu ne yow nag sula fi yàlla indee tey sëñ Modou Bousso ala kulli haal dañ la koy wax nga yeggee ko sëriñ Ablaye Sylla am nañ bërëb bi nag amin jiiɗi mahde ɗum dañ ko buga tabax taaral ko amin jiiɗi wadde ɗum juma dañ si buga def juma wadde hen to jangguete daara ni dañ see buga def tamit daara alquran amin jangguin hen alquran ni si janggal alquranil karim en mbaɗa hen kadi salle conférence dañji fof dañ si def nak ay salle de conférence yo xamantane pour dalal ganñi la air plus 2 la walla air plus 3 susi yalla ande tambacounda oui menen tambacounda noon du tijan du wana wona tijaan wona wana wona layen wona murit ko imam ratib goto ɓe jogi mo omon ɗo jooɗi woni ceerno souleymani agne um allah hoddirini e makko mune contan bu baax a ndax tamba yep contan nañ maana fu nga war muna mun a euh, jóge fii dem foofu ñu si de wax na ko lay xaar mu ne kontaan nañ si ñëw bi bu baax ñoo ngi lay wax bismillah fii si dëkk bi nag mu ne imaam mu ne nañ defal ñaan moom Abdoulaye Sylla ak ñoom seeni bopp ak lu ñu ak lu ñu leen bëggal ak yéen lu ngeen ko bëggal incha allah incha allah incha allah mun leen nan leen defal ñaan su loolu weesoo ñoo ngi ñaan mbooloo mi ngeen yegg kër ga abattoir añ jaa ngi foofu ñoom seen bopp dañ fay dem incha allahu rabbi pare guñu pare guñu si ñoom moo tax yéen seen i yéene euh, euh, président Abdoulaye Sylla ndax yàlla def ko mu jiite réew mi loolu loolu de yomb na yàlla moom ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na ko yàlla yombalal bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam keroog ji passé fu ñuy daje si ajjuma ji cak ajjuma ñi fay wàcc ay kaamil te Ceerno Hiba Kane jiite ko kii fay mag mooy kilifa bi keroog buñ ko waxee foofu wax ko mbokku taalibe yi def nañ fa ñaan te xam nañ bërëb boobu bërëb ñàngukaayu ñaan la fu ñu bu ñu tàmbalee jàng fo ba léegi tuuti moo moo ko manqué ñaar fukki at waaye ajjuma ji nekk dañ fay dem wàcc wàcce fa alquran ñu def suuratu yaasin ñu def yeneen ay dog te du du du ce du du nekkul ne dangay puukero luñ fa ñaan yàlla yàlla nangul nañu ko wallahi lépp luñ fa musa ñaan yàlla yàlla nangul nañu ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yéen seeni tànk yàlla na leen yàlla yombalal eh, julli yëpp kontaan nañ bu baax njiwul yëpp kontaan nañ alhamdulilah képp ku ñëw ak ku ñëwul yëpp kontaan nañ mu kii nga xamante ne dafa bëgg dara ne dimbal leen kaa dimbali ma ma am lu ma def si réew mi kooku ko kooku jara dimbali la يا آمين آمين آمين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين